journaliste bu mag ba ci groupe Futur media démissionné na manam yi Khalifa Diakhaté mi ngi dugg groupe Futur media ci ndorteel bu ba légui ñu bari ragné ko ci émission bi am chaque vendredi ci TFM Khalifa Diakhaté di ñu yëgal démission am ci page Facebook am Khalifa Diakhaté l'officiel mu teg ci né vive le Sénégal des valeurs ñu bëri di like ndax bokkewul dara ak propos yu Songé Diouf waxoon ci émission jàkkaarloo bi passé ak li Bouba wax tay ni Songé Diouf dafa wara a excuser wu buñu ci page Facebook, Khalifa Diakhaté le Songé Diouf démé expliquer ni limu mu wax ak li sénégalais xalaat du benn xalifa Diakhaté ñi ngi koy woo waaye jotaguñu ko ba léegi dinañ ci ñëwaat ci yeneen yeneeni leeral